kon sëriñ bi tàmbalee ci rabbi bi ma yashrahu l adhaana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad lajaa mu ne rabbi sama boroom xadd faja a dikke na dikk ak betteel muy indi na indi mbette bi ma ci loo xam ne yashrahu dana leeral al adhaana xel ya bi jaahi afdali man ci darajay aji gën ci ka nga xamne ne laja a lillahi ñeel yalla mana suñ borom andi lañu loo xamne day leral suñuy xol loo xamne day leral suñuy xel loo xamne daf ñuy jël ci ak ndof andi nako andi go xamne sax andi mbett la andi nako mel nako andi rek ci ak baxam waye du lo ko kenn laaj lolou nak bari na ci misal rek man na ci joxe lu melni ne diine islam diine Islam bim ñewé dafa fekkon nit ñi dof lan moy wone ne nit ñi dañu dofon moy dañ daa dem ci àll ba yett fa seenu xeer defar ko wutul ko ay bët gi nopp tek ko ne dañ koy jaamu moy seen yalla lolou lan moko gëna nekk ak ndof kon lolou mo la warona jaamu ndax yow ya ko bind waye yow yaa wëlbatiku di ca sonn ne mo lay fajal say soxla ta yaa ko jele ci montagne ba motax ben sahaba saxaaba ku yeewu la bi ne ba tub nek julit de tok mu yag rek ay ray japp ko mune man dal xamna ne doyna na rek ndax dafa amone yalla jo xamne da ko defaron ci tandarma wa tandarma wala ngato jël ngato wala tandarma xéew ko ba ba ba ba mana a mu defar ci ab yalla am diko jamm na ben bis muy tukki and ak yalla ji ndax fuñ da jëm dañ ko daa yobbu neena na yàlla <laughs> ñom ñu ah mu ne ma yaa mu xif amul lum lek mu daadi di tanku bi yalla bi daadi di <laughs> damu tanku bi yalla bi daadi di da xif kat yalla ji ñu ko defere ci tandarma wala ci ngato lolu kon xam nga lolu bu yewu won fofa rek dana wa man no mané jaamu lo xamné suma xewé sax man na ci dag lek kon sunu borom andil nañu lo xamne ne day raxas sunuy xel ba mu set wécc ci daraja yonent bi nga xamne mbolem kuy wëru ci yalla mo la gën di jaay afdali man qad laja wëruna na ñal yalla moy day delu ci yalla mbolem nit ñu bax ñi wëru ci yalla yonent bi mo ci gën bu ngeen xolé ñaari baari qad faja qad laja xamne ni mu yeme ci way sama cant cantuk làmmiñ li rabbin ñeel na buur karimin buy aji tedd la sharika boo xam ne déet benn xeetu bokkaale loxo di ko ñeel maa ngi sant yàlla cantug làmmiñ mooy lan mooy lim ma defal ma wax ko ba ñëpp xam ko bu doon cantug xol mooy ashukuru mooy lim la defal nga fayee ko ko ci jëf ne ko doo ma gën a bu gore loo ma sant dinaa ko def loo ma tere dinaa ko bàyyi ngir sant la ko maa ngi sant buur boo xam ne yëllut ñu di ko bokkaale bokkaale leeraloon naa ko mooy mbubbum yàlla nga di ko jéem a solal keneen mooy ba nga liggéeyee am say million alal ju lew liggéey bu métti nga dabaa ci sa kër gu mucc ayib yow sa oto bu mucc ayib takk say soxna wala sa soxna benn njóobeen jóge fee ne la sa oto bi ñoo koy bokk boo dawalee dem ndakaaru boo liggéey may dawal te moom defu ca dara loolu ak tooñ la waaye mu ne sa kër gi dama fi jël apartement wala sàmbur ak doonte néexu la wala sax mun la sa soxna si ñoo koy bokk wala sa soxna yi lii kuñ ko wax yow mii doomu aadama rek dan la metti imaginal yàlla nag bind jaam yi bind seeni wërsëg bind lépp ñu jekki-jekki rek dugal ca keneen ne ci la bokk moo tax suñ borom ne du ko jéggale nuñ ci yàlla musal moo tax suñ tubaa ne allahuma inni a'uudu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu nee suñ borom maa ngi muslu ci di la bokkaale lépp bu fekk li fekk maa ngi ànd ak sama xel day di xam du ma la bokkaale mukk waaye bu fekkee jëf naa jënd jëf juy nuuru bokkaale te xaw ma ko maa ngi koy jéggalu ñaan ko am solo la mu ne wa sadri al yawma nuuran saatian malaa da ngay jël wa ak malaa wa malaa te feesal na moom yàlla sadriya sama xol al ma tey ji nuuran leer saatian guy aji jolli suñu borom subhaanahu wa taala duy na sama xol ba mu fees dell ak leer sadr day firi dënn waaye mooy xol rek duy na ko ba mu fees ak leer goo xam ne ma ngay jolle bu fekkoon ne ci zahir la leer ga foo waay toll yaa ngi gis ceeñeer bi yaa ngi gis lumière yi muy tàkk suñ tubaa noonu la mel ci leeru yàlla moo tax mboolem ku ñëw ci moom rek jàppal ne leer googee dalaa xëcc ndax dafa am lu ñu tuddee dafu ak jalbu muhammadun mu doog a nag ndax daa waxoon bi afdali man ci darajay ki nga xam ne moo gën ci ñi wéeru ci yàlla kooku kan la muhammadun mooy di muhammad salawaatullahi xéewale yàlla fii abadin ba faw alayhi yàlla nekk ci moom fii xisbihi ànd ak kuréelam ba yàlla na salaatu wasalaam nekk ci yonant bi nekk ci waa këram ak ay saxaabaam kala a màndina na wala lekk na ba suur xontu na kulli sama lépp bi ci darajaam moom yonant bi salaam alkala moy firi ab ab ab ab xont wala ak ak dégg nga ab porwaay parwaay sàmm dañuy xol barab bo xam day am ñax mu bax mo xam daw bir ta du du ray mala barab bobé barab barab la buñu mëna sammo buñu mëna sammé seenu néna man nak dafa melé ci yonantu bi alayhi wasallam moy sama por fofu la foré ba euh, dégg nga lek ba sour wala bok ba nan ba mandi sama lepp rek ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam la inspiré wo ci lu duy ba fess addu'o dina ñaan waxon na xasi deug xasi deug ñaan la ñewna dina ñaan ilahi wala bok maa ngi ñaan ilahi sama borom allasi sama borom bi nga xamne ne matalena mawahibuhu ay mayam li jumlatil xalqi ñel mbole binde fi ma la nga xamne yaxtaru dana ko tan man yalla mi nga xamne bara ab bind na mbindee fi maa ngi di ñaan sama borom mi nga xam ne ku baax la ndax xéewali mi ak ay mayami jégleelu ko rek ñi baax bàyyi ñi bon jégleelu ko rek jullit ñi bàyyi yéefar waaye da koo dajale ñépp picc yéeg dégg rabi àll yéeg yéefar yeeg jullit ñi ñëpp la boole ay xéewalam fu nit dem fekk fa moo ne de bu ko neexoon ku ko noonoo rek mu téye ak dégg nga téye ak euh, ak noyeem wala mu téye biiram du mën a lekkati wala bu lekkee du ko mën a génnee yàlla mën na ko waaye nag daa bàyyi rek noonu kon buur la boo xam ne ku baax la ndax koo xam ne da ngay jariñ bay jariñ ku lay weddeeka mooy kooku jikko ju jikko ju tedd la yàlla mi nga xam ne moo leen bind naa jey tuxoo déeyaale naag moom kon ki muy déeyaale jege na ko moom yàlla jàll màgg na awaa man ay at wa karrama nii mu teral ma takrima haadin teraluk aji jub tey jubale waa bari ata dañal na kulli sama lépp min laxan ci ay neen nee suñ borom diyaali nag moom ay at waxoon naa xasida gi nee ñu ginnaaw géej gi la te li nekk ci géej gi lépp mi ngi diyaale ak yàlla moo tax ma ne am na ay at yu bari yu ma diyaale ak saa borom subhanahu wa taala mu fayee ma nag defal ma teraa ngay joo xam ne damaa jub te ku ma topp ma jubal la texe te ku ma topp texe waaye suñ borom moom moo dindi sama lépp ci ay xeetu bon